abdullahi wa rasulu ñu ngi sant yàlla di dolli ci liñ ko santoon di sàbbal suñu boroom di ko jégal suñuy bakkaar di ñaan sunu boroom mu teg ñu yoonu njub te saxal ñu ci yoon bi ngi seere ni amul benn buur bu dul yàlla di seere ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndawam la moko yoni ci ñun lim ko yoni matal nako ko ñu ngi jël ci mom di ñaanal di sermal ci mom sallallahu alaihi wasallam di ñaan suñu borom mu matal ñu ko ba mu mat ni ko bëgg ginaaw lolu mbokk jullit yi ñuy fatali suñu bop di fatali ñepp ci ni ragal yalla moy ponk bi nga xamni ni waruñu koo fàtte mukk te ñu xamni ni yi nga xamni ni lañ suñu borom defal mënuñu ko defal lutax ñu man ko sant kon nañu sax ci jaamu yàlla te di sax ci jëfe ay ndigalam ti bàyyi ay tereem loolu nag ñu def ko ngir jëfe ndigal yi suñ borom yi waaye def ko it ngir sant ko suñ borom delloo ko jukkal doonte mënu buñ ko doon jaamu bu dégg bëccëg mënuñu koo fay dara ci lim ñu defal suñ borom dafa wax ne képp koo xam ni yaa ngi yaakaar dajeeg man suba nee na na nga jëf jëf yu baax te nga baña bokalé sama jëm ji ak lenen kon lool moy ndigal li nga xamni ni waruñu ko fàtte mukk mbokk juldi ñun day li ñu bokk te tax ñu dajé fi moy l'islam l'islam nak diiné la jo xamni ni li yiw lepp da ci dajé ci biir lepp lo xamni day jari doom adam sun borom dajalé nako ci biir motax sun borom wax ñu ni Seydina Ibrahim moomu nga xam ne mooy sunu maam mu ni moom woon ab yahud nekkuloon ab nasaraan nee na kooku sell la woon loolu la jiital ba noppi ni ku sell la woon koo xam ne li mu nekk képp ku ca nekk yaa ngi ci lu baax ku ca nekkul yaa ngi ci safaan mu ni kooku mooy seen maam kooku lañ leen di askanale kooku nag li mu doon mooy ab jullit kon يونتي بي صلى الله عليه وسلم سون بروم داف واخ داف ньо واخ يونتي بي نتالي ني ا يين ييغا خامني يين اي جوريت موني يين داي يين اي ييغا خامني يين نيك بو فيكوني داني داني سيت دوما دامي لا سي گن داني سيت خيري لي سي گن داف ملني يين يين يور خيب لي سي گن لوتاخ ناخ فو نين گيسه لو باخ جيفيكو واي ديگليكو فو نين گيسه سفان مايتوكو واي تريكو تييت نك لولو ليب لالكو laltaay gi ci gën a dëgër di jaamu yàlla ak gëm yàlla kon jullit mooy kan jullit mooy ki nga xam ni mooy nit ku équilibré nit ku digg doomu koo xam ni mu ngi ci digg bi ëppalut yéesalut lu baax lu ne fa mu fa mu ca war a yam fa la ca yam du ca ëppal du ca xaabaabal waaye ab safaanit du ca laal du ko jege kon kooku mooy ab jullit mooy ki nga xam ni moy ko équilibré koku nak la l'islam soxla moy nit ko xamni ëppul ëppalu yéesalu nak ñëw na ci biir alcorane ñëw na it ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay barab yu bare bare su fekke ni aduna xam ngeen ni mom lañuy dund waye su fekkon ni alakhirah amul ndax aduna dina am sens su fekkoon ni faatu amul ndax dund dina am sens su fekkoon ni nit ñi taxawaat suñ borom lijjante lañ doon def démb amul kon ndax jug dina am sens su fekkoon ni euh, xiif du am ndax lekk dina am sens kon dangay gis ni yooyu ñoo ànd jullit bi war a taxaw ci digg bi lu mu ci mën di doon rek mu bañ ci ëppal bañ ci yéesal loolu la ñuy woowee équilibre gis nga societé yi société yi nga xamante ni dañoo jël alal def ko def ko muy seen euh, muy li ñuy wut li ñu soxla dëgg-dëgg bi ñu demee ba am ko ana fu mu leen yóbbu ñi doon wut kattan bi ñu demee ba am ko ana fu leen yóbbu da seetlu ni kon ndekete am na lu lu war jiitu loolu lu ko war a ëmb lu ko war a loo xam ni moo ko war a wër ba bis bu ba bu bis bu ci nit ki jotee bu ko dee wut bu ci nit ki jotee du ëppal du yeesal boo demee ci réew yi nga xam ni moom lañuy wax réew yu développé ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi natt seen seen kàttan ak seen am-am seen man-man ci seen alal ak seeni tabax ci loolu lañ koy natt réew yooyu nag boo fa demee bërki démb am na ci nit koo xam ni ci boroom xam-xamu seet doomu aadama ak nit koo xamante ni dafa am ay jafe-jafe ci xelam ci yooyu la moom ñu leen di wooy psychologue dafa wax ni réew mii ñuy wax France mu ne ndaw ñi ginnaaw bi ñu génnee ci li ñu doon wax confinement muy ñu tëj nit ñëpp kenn génnatul ci tawat ji nga xam ne moo fi nekk ci àdduna bi dal na ko suñu borom jeexal euh, nee na bi ñu ci génnee li mu gis li mu seetlu moom mooy téeméeri ndaw yoo gis ci ñi mu seet fanweer yi dañoo xalaat a xaru xalaat dañoo xalaat a xaru ndax yaakaar nañ ni seen ëllëg nar ta nar ta naru ñu am alal wala ngir ñu am ab liggéey dina jafe ci ñoom te ndigam nag seen adduna dafa nara a yàqu ndax bu ñu amul alal amuñu liggéey seen adduna yàqu kon ñoom jaral na leen a faatu bala ñoo doon bala bala ñoo am ñeent fukki at wala juróom fukki at foofu la leen al ut alal yóbbu foofu la leen am alal yóbbu mooy dund dunde ak njàqare dunde ak jaaxle dunde dund ci ay bâtiment te sa xel du dal du dal tey du dal suba loolu nag moom la lislaam di moytuloo aw nitam ngir loolu ay jurit bañ cee bañ cee dugg Euh, dañuy nekk ay jullit dëgg-dëgg yoo xam ne dañoo gëm seen borom gis nga réew yi nga xam ne dañu doon wut dañu doon wut kàttan nga xam ne dem nañ ba am doole xam nga képp ku dem ba eh, réew mu dem ba am bomb boo xam ni foo ko dóor mu maasaloo bu buñ ko dóoroon ci réew mu lu réew ma yaatu yaatu maanaam benn bomb dong dong dong buñ ko fa wàccee dara dara du fa desati dara du fay a te fii téeméeri at daanaka dara du fa dund réew mu dem ba egg ci loolu dafa mel ni kon liñ doon wut ci kàttan yow xanaa egg nga ca waaye dangay gis ni bu nit ki réew yi dem ba egg ci loolu yi tërëwut day mel ni dañuy daw di wutiwaat leneen loo xam ni doo xam lu mu doon kàttan jooju nga xam ne dem nañ ba téye ko te péeguñu ko ngir doxal jëmale doomu aadama ca kanam fa mu leen di yóbbu mooy fengale ay nit créer ay xeex ndax bu xeex amul arme du jar bu arme jarul seen économie du dox ni lislaam di jàngale mooy dëgg-dëgg boo ko seetee ci àdduna bi nga xam ni li lislaam di jàngale mooy dëgg mooy nit équilibré nit koo xamante ni dafay fexe ba démbam ak subaam ni muy sooree démb ni mu koy bàyyee xel noonu lay sóore suba ni muy sóoree àddunaam jii muy dund noonu lay bàyyee xel ni alaaxiraa ngi ñëw ci suba ni muy sóoree war a bàyyi xel ni day dund kon daa war a bokk ci doomu aadama dund di lekk di naan di jaxasoo nit ñi am soxna waaye noonu muy defee noonu it loolu lay bàyyee xel ni suba loolu mu def lépp des na ko taxawal te des na ko ko laaj jafe-jafe yu baree bari yi ñu am mooy équilibre boobu nga xam ni moo war a am ci ñun ñu war koo yare sunu njaboot équilibre boobu des na tuuti dañ ko war a jàngalewaat ñu xam ni àdduna ak alaaxira ñu ànd alaaxira bu bu bu alaaxira amul woon àdduna amul benn njëriñ bu xisaab amul woon bu fekkoon ne suba deesul taxawal doomu aadama yi kenn ku nekk ñu ñu calculer la nga doon def seetaat ko yàlla doxal yërmandeem kon yërmande suñu borom du am benn gën kon yooyu nga xam ne dafay mel ni ay contradiction il faut doomu aadama bi xam ni ngir mu mën a jariñu il faut que mu dellu siwaat nekk ci digg bi nag ut lépp mu teg ko ci ut ngërëmul suñu borom nit ki nga xam dafay dafay wut dalal di ko dajale boo ko dajalee ba noppi léegi lan fekkee ni da ngaa dajale alal nga xam ne yow bi ngay wut dajale alal dong dong dong moo doon sa yitte boo demee ba milliar yi ñëw nooy def léegi da ngay continuer di wuti milliards rek muy dajaloo ba faatu nga bàyyi waaye nit ki nga xam ni dafa équilibré mooy ki nga xam ne dafay jub wuti alal ngir wuti ci gërëmu suñu borom mooy tax ba bu ko amee. kenn du néew doole ci wetam te dimbaliwul kenn du sonn ci wetam te dindi dimbaliwul kenn du feebar ci wetam yorub ordonnance bu man koo fay faj te dimbaliwul kooku mooy nit ku équilibré mooy ki nga xam ni wuti na alal waaye xam na li ñuy doyee am alal ndax lu mu fi bàyyi lu mu bari bari compte bancaire bi moom bu faatoo bu fa 10 milliards nekkoon bu faatoo turam dañ koy effacé jox ko keneen kon moom xam na lan moo tax muy wut xalal lan moo tax muy wut alal moo tax bu ci jotee dina xam nan la koy def moom bu fekkee ne yow misaal mi ma lay jox moom li nga bëgg ci li nga gën a bëgg ci li nga war a lekk nga xam ne yow da wax ne lii daal mooy li ma gën a sox ci ci ñam yi ñuy lekk lu man di doon rek seet ko imaginer ko bu ñu la ko doon jox bis bu set bu yàggee lan mooy dikk ci yow moy day melni day dem ba egg ci ñam woowu ci boppam dootul neexati dootul bëgg di tay yow yaa waxoon ni li la bëgg nit ñi li la bëgg ki ni li la bëgg waye yow nga ni man aw aw aw yàpp laa bëgg di lekk bis bu set bo dem ba mu yàgg dina dem ba buñ la ko tegete dootu la saxati lu am solo du melni bis mu njëkk ba ki nga xamne ne daf ni mom ay ginaar rek la bëgg di lekk bu demee bam yàgg dina egg dina egg foo xamante ni ginaar yi dootul safati ci moom lu am solo ah naka moo ko waxtu wi ñu toll nga xam ne léegi ginaar yomb na lool ñee ñeenti téeméer wala juróomi téeméer nga am ko am na jamono bu mu jafe woon fi mu toll bari na kër yoo xam ne boo ko fa tegee daanaka dootu amati solo loolu li muy teg dafa lay jàngal lu bare bare ci àdduna mooy ni nit ki li muy wut bu fekkee ne lépp lu doomu adama di wut te du ngërëmul suñu borom bis bu demee ba jot ci xam ne du dara foofu laa bëgg egg lépp lu doomu adama di wut te eg te du ngërëmul suñu borom bu demee ba jot ca teg ci loxoom dina xam ni amul dara dara dara amul tus kon ngërëmul yàlla rek moo matu ngërëmul yàlla nag moo équilibre nit ñi dañuy dund ci àdduna kon àdduna bii li fi war a li li liy jagal àdduna dañ ko war a wuti kon moo tax lislaam bëggul nit ku yaafus dafa bëgg nit kuy jub di kër kër yi waaye nag li ngay kër kër yi na tax ba lay tax nga koy wuti loola moo am solo mooy bu ma ko jot bu ma ci jotee nu ma koy def bu ma ci jotee nu ma koy juróomi gone ngi ñuy xëyandoo di liggéey kii bu xëyee am ñaari téeméer bu ñëwee ñaari téeméer yee waa juróom bu jigéen la koy jox ndax xam na ni mu ngi ci coono am ci koo xam ni bu demee am juróomi ñaari téeméeram bu ñëwee day dugal ci poosam ba mu doon ñaari junni mu jënd ko mbubb mu rafet di jàggar jàggari ci koñ am ci gone goo xam ni moom bu demee dina bu amee ñaari téeméer dina ñëw jox ñaari fukk yi waajur waaye ya ca des moom da koy fas yéene téyel boppam ñii ñëpp na kenn ku ci nekk bokkut ak sa moroom gis-gis waaye li ëpp solo mooy bu ñu doxee ci kanam tuuti ñu xam kan moo nekk ci dëgg ci ñoom dañoo war a dox gone gi nga xam ne moom daa yaafus toog ci kër gi ni man su ma xëyee ñaar téeméer dong laa mën a am te ñaar téeméer mënta mënta dépense suñu waa kër kon naa toog ci kër gi kooku mooy ab yaafus loolu lu kon li am solo mooy doomu bi jug dox am suuf yi manaaki bi haa il faut ñu dox wuti waaye booy wuti nag na nga xam li tax ngay wuti mooy lan mooy teg ci ngërëmul yàlla ci sa kanam boo ci jotee mooy tax nga man koo bokk doomu aadama yi ba ngërëmul yàlla loolu nga xam moom nga doon sàkku nga mën koo am kon équilibre muy ak tawazun lu ama am solo la mooy li lislaam jàngale lu ñu war a delloo si waat ki nga xam ne day wut soxna ndax dafa gis jigéen ju rafet donc mu topp ci ginnaawam ndax taaram bis boo demee ba jot ci bu ngeen dëkkee ñaari fan ñett nga commencé gis la mu ñaawle li mu la doon nëbb ndax benn doomu aadama doomu aadama nit jigéen joo yor boo ko yoree ñaari ñaari weer ñett nga gis yamu ñaawle yi nga xam ne ñu bare bare mënuñu koo gis bu fekkee ne yow ab taar ak bànneex dong moo taxoon nga dugg ca da ngay dem ba mu yàgg rek nga bëgg ca génnaat waaye bu fekkee ne jàmm yàlla taxoon nga dugg ci biir kooku loo gis ci moom danga war a jàpp ne loo gis ci moom ba mu war a ñaaw nga war koo génn di ko jébaane na la leer ni yow doomu aadama nga te am na lu mu gis ci yow loo xamante ni waroon na ko génn jébaane te jébaane yow kon an ngeen àndandoo gëm liggéey jaamu yàlla wut ngërëmul suñu borom kon ak tawaazunu nafsaani mooy wut ngërëmul suñ borom lii rek mooy li solo ci àdduna loolu nag bu ko ab julit fàtte mukk mukk lii moo tax ba li ñuy wax feebaru stress feebaru yooyu feebar yu bari yooyu nga xam moom la tubaab yi di dem di consulter ay psychologue ñun dalaguñu waye buñu yeru gone yi ci ñu xamni aduna al usr wal yusr ñoo ànd moy jafe ak ak yomb yi ñoo ànd lolu buñ ci yarul gone yi suba génération bu mel ni génération le di waja xar génération bobu lañ am ci suñu rew inna ma al usri yusra ponkal mu tollu ni suñu borom lu mu wax doy na sëkk waaye bu ko waxee ba pare baamu ko kon xam nga ne loolu ñor na inna maa al usri yusra inna maa al usri yusra jafe goo gis yomb nga ca kanamam loolu mooy tax ab julit du xaddi lu lu jafe lu jafe-jafe-jafe nga mën a taxaw jàkkaarloog moom jàmmarloog moom ndax wóor la ni bu doon fukki at bu doon ñaar fukki at yomb nga ci yomb nga ci kanamam inna maa al usri yusra waye lolu yit moy tax ba julli bi bu suñ borom tege ci mom tege ci ay loxo ay xéewal ak lu mu bari bari duko tax duko tax jann jànnaxe duko tax jaxle duko tax fàtte ñi mu andal dem ak ginnaaw barki dem inna ma la usri yusra nga taxaw ci dembu ak tay nga taxaw ci yombu ak jafe nga taxaw ci jëf ak bàyyi nga taxaw ci al-akhirah aduna nga taxaw ci dundu ak dee ci diggante boobu ci ne doomu aadama bi war a taxaw te bañ koo fàtte mukk aqulu xawli hada wa astaxfirullahi